fa seenee xool li fi nekk soo Sonia yaay jiitu ma topp sa ginnaaw. kon xam ngeen ne rek jiitu toppaat fi mu ne nii loolu la ñuy wéyalaat rek xoolal euh, bi nuyu nañ la. waaleykum salaam na def soxna si. Euh, ñu ngi fii ci fi nga xam ne rek mooy Palen euh, cosmétique Fall et frère rue 19 angle V nekk ci marché Tilène ñu nuyu leen bu baax a baax a baax di leen laaj tey lan ngeen ñuy tegalaat ci table bi. waaw léegi fas yéene fas yéene nañ dellu dellu si waat ci table bi comme ni ngeen fi ñëwee woon ñu fas yéene présenté waat suñuy produit comme ni ko ñëpp gisee gisee woon ñëpp gisa waat ko noonu fi mu ne damaa indi benn produit bu bees benn diw bu baax ma fas waaw benn diw bu baax ma fas leen ko yéene présenté waat woon leen ko sur le marché. muy lan euh, diw daal nga teg ci taaba ji tey ban ak ban la ak liw lu mu mën ak lan lay def ndax nag ku ne yi ne diw ah fi mu ne nii moom didim xewi na kenn di didimmatul ah. fi ne nii ñun xam nga ne dañoo mën a fépp. su période bi jotee rek dañuy xool nit ñi li ñu gën a bëgg gën koo soxla rek jeex na yaa ma gën a xam lu ñu gën a soxla lu ñu gën a bëgg rek ñu indi leen ko te fi mu ne nii ci seddaay lañ nekk te soo ne seddaay ne diw seddaay mënut a dem sans diw diw mënut a dem sans seddaay kon nag ki koy utiliser mooy doomu aadama bi moo tax ci satisfaction rek lañ lañ leen koy delloo di leen ko indil saa su nekk. kon yow wax ma li ngay ban diw ngay njëkk teg ci table. bi may njëkk teg ci table bi mooy lan mooy miroir. miroir nga tiim TFM miroir du Sénégal. Ah. diw boo xam ne la nag. Ah. ñëpp mën nañ ko diwoo. diw boo xam ne la dafa abordable diw boo xam ne la du yàq teint. te teen bu nekk la mën a àndal. te surtout fi jamono ji toll. ñëpp seen teint dafay yàqu. même sax ñi nga xam ne seen teint day didim. seen teint ñi nga xam ne tey jii dañu am ndoxum siti suñu laalee diw diw bi yàq seen seen yaram bi day ñëw maasaale lépp. ñëw jox la teint bi nga soxla. xale mën na koo diwoo jigéen mën na koo diwoo góor mën na koo diw. réparateur là dal pour te dire suñu fa jógee ñu dem ci Rosy Rosy rose bi moy Rosy rose bi tout type de peau la mom tamit diw bo xamné la même ñi nga xamné dañ dañ doon xeesal mu yak seen yaram suñ ko jëlé day réparé waat lépp da leen di ni ñu meloon teint bu naturel la lay jox te lo lo wax ñu né naturel te lépp naturel mo ci gën kon même so xéssalon ba sa teint yàqu soo ko jëlee moom da lay waat def la mel la def la ni nga meloon ni nga meloon voilà ah, nga ne Rose Rose ma gis nag benn Rose bu nekk sawet damay dugg xool ko ah salaamaaleykum bonjour la Rose. bonjour comment tu vas. ça va je vais bien. ça va bien ah, ça va. ah yo, ñu la fekk fii fi nga xam ne rek mooy Palen Cosmétique. waaw effectivement euh, ndax ci yu baax yi ngay def ba am lu baax li. waaw effectivement voilà <laughs> donc comme nous ko waxee rek produit bu bees la. Ah, donc euh, comme produit bëri nañ si marché bi. am na yoo xam ne ne que sincèrement nit yi bu ñu ko utilisé day yàq seen yaram mais c'est fait exclusivement. pour tout type de peau mais mais mel ni tàngal.

77 976 86 82 408 408 60 36 77 446 52 52 446 52 52 adresse bi mu ngi ci rue 19 angle 20 képp ku soxla produit bi so ñëwee fi ci Palen cosmétique Sénégal business moy fournisseur bi fo dem ci Sénégal ak fo mëna woté ci numéro yi ak fo nek so produit bi dinañ livrer